leadership moo koy defar. Eh, ñun crise leadership la ñu am. xam nga ñii bi ñuy def seeni institution gana leadership bu foor moo ñëw teg ay institution yu dëgër ba ne la jaabal sax mënu ko contourner et pour ñu am loolu nag il faut cette euh, volonté politique réelle volonté politique bu sincère mais tey. ci suñu système électoral dañu indi parrainage bu ñu génnee ko gannaaw su bu ñu def lii même si ay réformes électorales et cetera et cetera donc lu ñuy def toujours y a pas volonté manifeste d'améliorer y a pas cette volonté manifeste de renforcer euh, li nga xam ni mooy suñu ay institution li nga xam ni mooy suñu système démocratique mais chaque fois bi ngay nekk opposition li nga doon xeex boo ñëwee ci nguur gi arrangé na la moom ngay téye donc alors que li ñu war teg mooy nan la ñuy marqué euh, empreinte ci bi nga xam ni ay nga ci mbir mi euh, defuloo jéego bu jëm ginnaaw nga régler ces questions yi nga xam ni waratul posé wu ci ci ci ñun. Euh, beneen bi góomu robaale Sénégal la ça il faut le dire. Mm-hmm. de Senghor léegi léegi yéen a ngi fi fàttelu ni ñu doon utiliser la machine judiciaire contre ay adversaires. Mm-hmm. Abdou Diouf. nguuru Ablaye Wade nguuru Macky Sall est-ce que lii dafay continuer nguuru keneen bu ñëwee mën a amaat la même chose. toujours les mêmes problèmes vous l'avez dit li presse bi di wax tey vingt ans ginnaaw même problème la presse bi doon wax te kon dafa mel ni ñun avancé wuñu ci loolu et pour ça véritable leadership bi pour mu am il faut que ñu ñu ñu ñu changer paradigme yi tey le débat yaa ngi wax programme jamais au Sénégal ñu poser débat d'idée ou de programme non c'est des débats de personnes. de personnes le niveau du débat est très bas. Mm-hmm. Ablaye Mbow viendra pour euh, des, des idéologies et cetera de la formation des de de la classe politique même. Mm -hmm. mais su fekkee tout le débat tourne aujourd'hui si euh, ci ay mbir yoo xam ne ay détails la. loo xamante ni jarul woon sax ñu ci coow wala nangam wala maag Moustapha bokkuñu nu ñu xalaatee man naa xool nu ma ko xarabee wala nu ma dalee ci kaw wala Omar Faye maag moom bokkuñu nu ñu xalaatee on ne fait pas de débat yoo xam ni parce que suñu culture démocratique des na ci tey mm-hmm. waroon nañ toll foo xamante ni Ousmane Sonko a produit un livre sur sur l'économie et cetera que que quelqu'un d'autre produise un document sur l'économie c'est-à-dire ñu wax ñu ci jafe-jafe Sénégal yan solution la ñu war a apporter tey on parle de la jeunesse et cetera Macky Sall def na jokkoo ak Macky Bougane nee na dafa def tiñal Macky et cetera c' est <laughs> mais nañu poser débat bi que Bougane nous dise yan solution la indi la poser sur la table euh, mu nekk un débat constructif boo xam ni ñi koy déglu ñi ñuy seetaan sénégalais yi dinañ xam ni regard sur la je donne juste des exemples am na ñoo xam ni sur la classe politique bu ñu waxee rek nga xam ni kii xam-xam la. Mhm. et malheureusement maa ngi nuyu suma benn yaay xam naa di ambassadrice la woon. ma koy nuyuwaale de passage compétence yi ñu soxla ci réew mi xam-xam bi ñu soxla ci réew mi tant que restauré wu ñu saboir ak mhm. compétence mhm. jox ko gëdd jox ko cër ci réew mi dina jafe maintenant Ablaye il utilise une phrase boo xam ne ci moom laa ko mos di dégg daf ko bëgg Ablaye Ablaye Mbow daf ko yàgg di wax mhm. euh, politique dem ba nekk ascension politique les gens sont là pour des pour des prébandes moom daf koy faral di <laughs> utiliser alors que pour man euh, engagement politique li ci jiitu mooy servir. C'est très grand journaliste. comment se battre non comment faire pour servir sa dëkk. parce que pour man euh, nit bu dem ba choisir politique choisir na tey pour jëriñ réewam pour jëriñ sa réew nag il faut nga renoncer ci yow il faut nga renoncer à tout les soldats qui sont au front pour se battre pour l'intégrité territoriale xam nga ñooñu dese la ñu réew mi dara et le Sénégal a toujours produit de grands hommes de grands hommes euh, euh, d'hommes d'État mhm. mais malheureusement de plus en plus ñuy dem oui. euh, à la place d'hommes d'État on se retrouve avec des hommes de détail et aujourd'hui on doit faire focus ci réew mi nan lañ koy développer nan lañ koy génnee ci fii ñu nekk mhm. mais ça fait une année mhm. on est là raay na ko violé na ko yooyu ci yooyu la ñu nekkal di matin midi soir alors que war nañ dem sur des solutions. Mm-hmm. alors problème bi am ni comme di comme dira euh, euh, comme dirait Alioune Badara Sonko. pendant que euh, ñuy wax waxu peut-être détail lañ ko mën a wala mën a jàppee. y a toujours la guerre en Ukraine entre Ukraine ak Russie répercussions yu mu mën am sur le plan économique ci Sénégal enfin de toute façon on aura l'occasion d'en reparler. après ñu woo économiste <laughs> ñu dugg nag ci suñu deuxième. sujet. voilà donc pour man pour man daal euh, war nañu problème bi ñu fi am yëpp ñun ñëpp ñu wax ko waxoo ko waxuma ko acteur judiciaire seen bopp waxal nañ ko seen bopp. Mm-hmm. Euh, principe yi ñu doon wax séparation des pouvoirs ce n'est que juste théorique. Mm-hmm. crise judiciaire nag bu amee ci réew comme dirait Abdoulaye ou Moustapha Diakhaté. Mm-hmm. moom mooy crise boo xam ni duñ ci mën a jogaat. il faut que ñu restaurer cette confiance euh, du justiciable vis-à-vis de la justice sénégalaise pour moi c'est un syndicat dañuy ragg seen yaram mais du sénégalais ñoom ñoo ko wax ban perception parce que service bi ngay def ñi ngi koy rendre dañu am une perception et perception boobu ñu am dafay déteindre ci yow maintenant li ngay dox démarche bi ngay dox moo lay permettre nga am crédibilité nee na bokk na suñu système judiciaire tey on avait parlé du bracelet électronique tey kaso bi population carcérale mu ngi gën a yokk waxoon nañ juge des libertés mhm. même moment là on de dossier wala nit yi siiw mais ñi nga xam ne siiwuñu nekk ci ay longue détention préventive nga xam ni ci kaso bi téye nañ ay nit yoo xam ni kenn attewu leen kenn dégluwu leen wala ñu def la instruction magistrat yi ñu war a am est-ce que tàggat nañ leen est-ce que mot na est-ce que doy na est-ce que justiciable est-ce que am na moyen pour mën a dem ci justice sénégalais parfois nga jot ak moom sax mu ne la su ma demee si yoon du egg parce que aw ma moyen yoo xamante ni mën na ma permettre mën a jël avocat les gens n'ont même pas accès à l'information justiciable war na xam lu bëri donc li ñu war a Euh, càmbar ci biir justice bi moo bëri mais première des choses dindi exécutif bi ci loxo bi mais beneen affaire bi. dem ba li ñu doon wax mu nekk un vœu ñuy am président boo xam day nekk au-dessus de la mêlée. c'est-à-dire dès l'instant nga falu nga président nga jël parti wut secrétaire général parti parti bi taxawee ne yow nga nekk président wu réew mi tout court tant que egguñu foofu euh, dina jafe parce que procureur bi dafa dépendre ci ministre de la justice ministre de la justice bi bokk na ci kuréel bokk na ci parti. Souleymane Soumaré ak Moustapha Diagne parce que comme man damaa lëj ñoom ñaar dama leen di nuyu laa ndax mi ku fi amul avocat wóorul de <laughs> nous sommes dañuy dugg ci euh, élection législative yu ñu jëm ñu wax waxu élection législative ñu indi lii di parenage parrainage bi taxoon d'ailleurs euh, ay manifestation amoon manifestation amoon euh, démb ba jur ay arrestation peut-être sax libéré nañ leen mu nekk loo xamante ne peut-être dañ koy dañ koy dañ koy déplorer autant arrestation yi ci jot a am mais également parrainage bi lan ngay xalaat ci parrainage euh, président. bon d' abord euh, parrainage lu yàgg Sénégal la. Mhm. Euh, déjà 1963 coowul parrainage indi woon na fi problème ba 47 personnes faatu ci. code électoral Kéba Mbaye bi ñu ko defaraatee 91 92 ñu indi parrainage mais dañ ko beraloon les les candidats indépendants. Mhm. ci bi Macky Sall faloo mu am ñaari événement yu mag yu fi xew. ci mhm. politique mooy d' abord les élections locales de 2014. oui avec 2700 listes. Mhm. les élections législatives de 2017 avec 47 listes. évidemment coow li commencé bari. Mhm. ñu ne ah war nañu wut moyen boo xam ne danañu contrôler le nom enfin le nombre enfin danañu mën a filtrer les candidatures. ci biir loolu am loi bu ñu indi mooy la loi sur le la loi sur le parrainage. bi ñu defaree loi bi